man Baba Silla dëkk n'est Massar président de l'association d'entraide des personnes âgées de Kër Massar mais ci casquette association bi parce que vous savez que c'est apolitique te fépp ñu mënti dem loolu la pour wax politique dañu pour lii defar pour nit ñi xamee ko noonu parce que interprétation dafa gaaw ndax li gën a bon ci àdduna mooy liggéeyee xelu jàmbur nit ki li nga dégg rek ngay mën a juger mais loo déggul waroo ci am xalaat ñaar li ñuy wax nag amuñu ci xalaat ñaar parce que jóg pour defar mooy sunu jógaay bi jóguñu pour boddi kenn jóguñu pour saaga kenn jóguñu pour yàqal kenn mais nag dëgg yàllaa ko moom ci dëgg rek la ñuy waxtaan ndax nit ki soo waxul dëgg rek wax lu ci ginnaaw dëgg damay bañ a jaar ci tur ndax loo gis dafay tegul ñu ñëwoon fi nag di waxtaan ak presse bi di leen di xamal ne ñun dañuy ñëw ay régulateur lañu kër masaar yépp dañ leen jabootoy ndax suñuy doom ak suñuy jarbaat rek fi ne mu am na quelques anomalies yoo xam ne dañ ko constaté ci vote bi ces anomalies la bi ñu demee ba xam ne am na ñoo xam ne constaté nañ ko ñu def recours nit ki nag libre nga ci boo demee ba tu as touché du doigt xam ne lii ñu la def jaaduwul te yoon may la ko war nga mën ko war nga ko mën a def mu tegu ci yoon mais li nga xam ne nag mi ngi ci loxo yoon te sotteegul on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs nañuy bàyyi yoon mu def ko parce que on a confiance à la à la justice de notre pays ndax lépp li ñuy àtte rek ci yoon lañ koy teg ñun nag ay mag la ñu defar moo ñu fi indi ñu pour yàq ça je le répète ndax interprétation dafa gaaw y a des gens yoo nit ki booy wax ay say noon a ngi taxaw bu loo juum ci virgule ñu kii ko dañuy ñaan yàlla nag yàlla jubal suñu làmmiñ ndax wax mu jub day fekk mu neex sunu borom wax mu yegg day fekk mu neex suñu borom ñun ñëpp lañu yéen ñëpp la jaboote ñëwuñu fi pour ñaaw ñëwuñu fi pour boddi loolu fi am nag ay irrégularité la loo xam ne ñu bare constaté constaté nañ ko ñu bare te loolu mënul ñàkk nit ki nag li mu am may ko ko une victoire n'est jamais définitive ci àdduna àdduna combat ba ba ngay faatu ku waxoon ne tey Abdou Diouf Ablaye Wade dina ko déboulonné kenn du ko gëm ku waxoon dina Ablaye kenn du ko politique la vie est ainsi faite y a des hauts ak des bas yàlla nag mooy def lu ko après tout on est des croyants nous sommes là pour être les victimes du destin le destin de tout homme engendre son bonheur et son malheur bu fekkoon ne nit mooy may boppam

mais nag nit ki boo demee ba gisal sa bopp xam ne am na ay irrégularité war nga sañ ngaa ñëw li la yoon may nga def recours recours boobu nag mu ngi ci loxo yoon bu justice ne kii moo ko moom ñu delloo ko ko yooyu gis nañ ko nit jël na kii beneen ki gagné ñàkk ñu ko yéene gagné ñun ñëpp suñuy doom lañu ñëwuñu fi pour wax lu ñaaw ñëwuñu fi pour vote

man bàyyi laa damay ñëw ko defal ñëw ma ko def du ma mel ni kenn lii c'est pour un temps boo xam ne c'est c'est c'est éphémère c'est dem dund bakkan bakkanu nit moo yàqu ma sama année dégguloo ma ne une victoire n'est jamais définitive jamais adduna xeex la rek ndax boo xoolee li fi passé il ne peut pas avoir d'histoire euh, de d'histoire sans événement histoire su amee rek dafa dafa fekk événement lii nag ci ay li ñuy wax ji ëllëg la mais kan taa taxaw fii naan lii laa faral ak tëddee bi laa faral faral ma cër. non bokkuma ci témoin mais am yi témoin wax ay nit wax nañu ma dégg des témoins des témoins oculaires ñoo xam ne dem nañu ko daal dégg. ñu la ñu wax ne y a des irrégularités comme ni mu mës amee. Amna, na ay ay kàpp ñoo xam dañuy dem dañu fekk foofu ay kàpp ay gàpp mu la yooyu yooyu lañ fa fekk loolu lañ fa fekk ñi ko constaté nag ñoo ko wax mais man du ma nit boo xam dafa dem ba fekk dañu bëgg rek ngeen xam ne ko sa